mais mention spéciale ak suñu responsable ak suñu ministre bi nga xamante ni ancien la woon te mu jaaroon fii ñu ngi koy gërëm di ko sant kooku mooy Mouhamadou Makhtar Cissé ndax lu tax dañu ko mënul fàtte dafa am li mu fi def te chaque jour bu fi jaaree bàyyi fi trace kooku mooy le DG Mouhamadou Makhtar Cissé au ancien le ministre ñu koy gërëm di loolu weesoo suñu maire di Dembel Demba commune de Mbande mi ngi gërëm Dembel Demba ndax dafa am li nga xamante ni dinaa ko wax tey ci biir commune bi di Dembel Demba déglu leen bu baax li ma leen wax bi ngeen nelawee ba ñu ñàkk suñu maire bi xamal ku fi ñëw xuloo guddi xuloo li tax may wax loolu dinaa leen ko wax ndax suñu maire bi mu ñëwee ba tey daf ñu bàyyi ak li ñu bëgg suñu biir xol mooy suñuy suuf te commune Mbane lenn la am li nga xamante ni mooy bëgg-bëggam mooy ay suufam te suñu maire bi bàyyi nañu ko daggal nañu ko jox ñu ko dimbalee ñu ko di wut ku ñu dimbalee ku ñu liggéey ci loolu. defar bi ñu fi nekkee ak léegi mayewu fi mètre jaayewu fi mètre dimbalewul nit mètre mais population bi la dellu ginnaaw di tayeen daggal ay terrain pour ñu liggéey pour ñu mën a jëriñ seen bopp dafa di xam ni ëllëgu maanu mooy suuf si te bu jëlee suuf si jox ko les bailleurs kon bu ëllëgee doomaanu mbaan dañuy nekk ay manœuvre te loolu war naa mën a ñàkk doomaanu mbaan war naa nekk ñi nga xamante ni ay entrepreneur la ñuy doon loolu moo tax monsieur le maire am boobu xalaat lu ba ci lu bare ndax temps bi du ma may mais aussi maa ngi nuyu suñu ministre bi nga xamante ni ñu ngi yónnee délégation bi fi de la jeunesse.